mu xew négligence bi nga xamante ni Sénégal def naan ni jóguñu ci di ko jooy mu négligence bi nga xamante ni mi ngi am ci biir hôpital yi du ma ni hôpital rek yi am ci waaye mi ngi am ci biir tout ce qui est administration Sénégal fa ngay utee kayit fa ngay fajoo fa nga war a ñëw laajte renseignement sax da ngay ñëw war a laaj renseignement ñu day yuuxu di la gëdd rawatina bay négliger ay bakken di ci faatu mhm. ndax gis nañ ko ci Louga barki dem mhm. gisaat ko ci hôpital Fann gisaat ko ci ki hôpital Mame Abdou Aziz mhm. Dabakh yi ñu ci di di di di di di di jaale sunu jigéen boobu fi ñëwoon tamit macha allah rabbi wallaay ndeysaan ñaanal ko yàlla moom it sama borom amiin yaa rabbi yërëm ko ndax nit ku baax amiin a seede ci moom ndax koo xam ne man li ma fiy ñëw yëpp heure ma yegsee day ree bañ na ko mujj gi nu ma ko doon tooñee ku la jege sax moom fi ne day fër ndax day joxe lekk rek day joxe ñam joxe noo ngi profité di ci di ko jaalee mboole mbokkam mm-hmm. yëpp rek mm-hmm. di ñaan tam sama borom yërëm ko te jéggal ko mm-hmm. kon ñàkk ñàkk assistance boobu tey jii ci réew mi man waxuma état nguur ñeeg nii tey ji ci nit nit ñi naka lañ ko war a dundee ak naka la ci nit ñi war a taxawee waaw man léeg ma posé sama bopp question ni est-ce que jotul ñu ñuy yóbbu si hôpital yi nii test ci seen xol yi est-ce que jotul seet seen xol yi ba xam yan façon lanu mm-hmm. est-ce que jotul ñu ni yóbbu ci hôpital yi comme ni ni yóbboo nit bàngo mm-hmm. jàngal ko mm-hmm. ba dara jaaxalatu ko walla sax nu jàngal ko ba xol bi ci boppam tas tasar ba muy xam àqu doomi aadama ak yërmandeem est-ce que jotul mu war di am est-ce que jotul nu seetluwaat bu baax a baax ñu ni dénk sunuy àq ak sunu yelleef hmm. est jotul nu xoolaat ko hmm. est-ce que jotul ni fii nu tollu bakkan ak ordonnance booy laaj lu ci gën a seer ordonnance bi des fi bakkan bi dem te bakkan bi mënoon di jëndi ay ordonnance yi ordonnance di jaale hmm. Ramatulaay Fay mi ay mbokkam ñàkk ñu nit nu ñàkk ko ci lu metti lool ci asma gu ko bett lool ci ni mu demee ma jàpp ni nag tawatu de mhm. waaye mu war sauver ñeneen donte dem na mhm. mooy li nu war a waxtaane nii mhm. nit ñëw manqué nooyi di dund lu doy waar nga ni prise en charge goo xam ni lu mën a nekk la ci lu gàtt nga xam ni yow mi ko tiim di ko laaj bu doon sa doom la doo ko def doo ko def wallaahi bu doon sa mbokk la moo xam ni soo soo ko defee nu gàddu la doo ko def mm-hmm. yow nga tiim ko di jaabante ba nit ki mën a sedd sa loxo ta nga ni yow gëm nga yàlla mm. gëm nga yent yàlla muhammad mm-hmm. gëmoo yàlla gëmoo yonent bi mm-hmm. gëmoo jaami yàlla yi man xaw ma loo gëm <laughs> te bu yàggee est-ce que sax du nu ni mm. hôpital yi est-ce que du dañ leen ni soxlaloo ay néew kon doon nañ ko léegi diw dem na mhm. dee na diw dem na dee na walla dee na néewaguñu kiis ñu euh, rein ba dem na hmm. alors <laughs> am na di pourtant de ah. <laughs> ana organe ya dem na fu mu jëm hmm. <laughs> la yóbbu organe yaa ko rey nag moo tax il faut ku nekk doon sa médecin bopp ci sa kër ak sa njaboot. Hmm. soo koy dem ci hôpital xam nga luy doon sa médecin bopp. Hmm. di taxawu sa njaboot. Hmm. loo gisul xamoo nga buubaat sa njaboot dem dem yóbbu sa kër nga dénk yàlla. lii dee léegi mag ñi bu njëkk hôpital yi barewul woon dispensaire yi barewul woon sëriñ si melul woon nii nu mel te de deewewunu nii nu deewe nu tey la lekk gi gën a baax mhm. tey la garab yi gën a baax tey la pharmacie gën a baax te ana diw rekk dee na lu xew ni nu dañ ko sàggane ah, bakkan ci àdduna moo tax yal na nu yàlla wàllu metti na metti na ci faan mhm. metti na ci Ahmed Sakhir Lo ca hôpital ba ca Louga metti na ci maam Abdoul Aziz ci hôpitalam bii ndax tur yi ni mu rëyee ay waroon nañ sax di xool ci loolu waaye defuñu ko ba kañ ci àdduna kaasa lu nu ña dee ba pare mm, mm. ñi deewagul a tax nii wax mm, ndaxte jàppal ni lii dem ci internet bi nga yëg de am na ñu tëdd ci hôpital yi di dund souffrance gu doy waar <laughs> li gën a garaaw nag weesuwul mhm. nit yor benn ñeenti junni mhm. nga jëndal ko nga jëndaloo ko garab goo xam ni ndeke sax du moom la war a naan oh mi <laughs> dalay nit mhm. bis bu ne dama koy wax nit bis bu ne ma ni ko ñun danoo yab rek ñun sëriñ si waaye euh, malheureusement <laughs> malheureusement waaye kër sëñ ba am na <laughs> waaw mooy garab yi mhm. <laughs> kër sëñ ba mhm. <laughs> garab yi malaat bu faatu mhm. mbuusu garab lan moo tax du doon ci kaas malaat bu faatu mbuusu garab ni nu ñaata man na trois cent cinquante mille ni nu c'est pas grave ah, dëgg dëgg waaw est-ce que jarul woon remboursement ni nu amul solo dee na léeg di ko toppee sax lal bu mu tëddoon dix mille francs ba six mille nenu nenu réew maa ngi dox hmm. wallahi réew mi dox wala jën loolu ordonnance te xam ne doo ko naan ñu ngi la koy jën loo waaye doo ko naan réew mi feebar waaye ma ni la am na médecin yoo xam ne danoo yor bu waat spéciale boo xam ni hmm, hmm. ñooñ sax duma ni médecin ndax médecin du jëfe noonu dama naan ay espèce médecin wala ñuy wane wanelu médecin mhm. ñoo xam ni dañuy wanelu te lool amoon na fi ndax am na kon fi jàppoon jàpp nañ ci ñaar waaw mu yàgg sax di di jëfe lu mel noonu te kenn xamu ko imaginel ni tey mhm. imaginel ni tey nga ni diw nangam sàngam te fekkati yow li ngay wax mhm. ak li am du benn loolu dafa doy waar léegi sëriñ bi loolee wallahi bu doon nit ñaa ngi sonn di génn garaawul de waaye dee moo rëy mm-hmm. dee ah, waaye ñi faatu yal neen yàlla yéen docteur bu mag bi nag kenn la mm-hmm. muy allah subhanahu wa taala nanu dimbaleeti mm-hmm. nanu yërëmati nanu taxawooti ndaxte day bu nu taxawalut sunu bakkan yaa ngi ci xott hmm. ay yàlla bari na yërmaande loolu rekk la ñuy ñaan sunu borom njiitu réew mi yëpp moom la fi yàlla teg bu daawul déglu déglu jot na bu daawul seetaan seetaan jot na seetaan la bu nu ko tënk ci hôpital yi de xëy war a añ yor téeméer yàq sa njaboot lekkoo boo ci amee semaine de ga ndax ku mënul yoo ku mënul amuk dépense nan ngay jënde ordonnance xaw ma ko boo deewee ku la rey seetaan waaw wa ah, waaw jaaduwul woon nga war a yor juróom benn fukki dërëm boo ci mënul ndékkit añ ci mm-hmm. jaadu woon na pourtant dëgg dëgg téeméeri dërëm mënoo fexe ba añ ci yow bala ci añaale sax njaboot mm-hmm. te amoo foo koy jëlee da ngay jékki liggéey rek ni la dàq na la sans droit nga ci yéeg di ci wàcc say mbokk di ci yéeg di ci wàcc ba nga ñàkk ci juróom benn fukki junni te waa ji ngay topp li nga koy toppee bu matee téeméeri junni moo génnee juróom benn fukki jeex na dangay ngay sonn bàyyi waa ji naan la fu la neex demal la lay njëkk wax <laughs> fu la neex demal. lu leer billaay bu xamoon ni fa ngay dem danga am loo fa fekk. Mm-hmm. lu ko wax nit ñaa ngi koy dund. Mm-hmm. ni nu garaawut. moo tax yow ma xiyaam dana metti de embouteillage ma ma ma xali dana am ak gi génne de. waaye bu senegal moom. <laughs> xam naa ne dana nu yàlla doon. yàlla ci yàlla musal. amiin <laughs> doy na waar.